ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen site internet bii di net bi TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy doore kat yu nga xamante ne rek avocat bii di wéy sutura Cheikh bu Ousmane euh, ni ki tey jii ma ngay sàkku rek ci autorité yu yees yi nga xamante ne ñoom ñoo ngànk nguur gi rek ñu yóbbu nag ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekkoon ci nguuru ko Macky yoon bu ko defee rek ñu yoon daal di def liggéeyam moom nag mu daal di utiliser ay kaddu yoo xamante rek jamono ji ma ngay sàkk sàkku nag ci nu mu gën a gaawee rek ñu jëfee ko mu bañ a am nag lii di mu bañ a am xaj gi ak senn ci yëf yi ba tey rek niki tey ci altine ji yem ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril ci atum 2024 bi leneen nag Sénégal ci jëmmi boppam rek dafa mel ni dafa fàtte nag politique wala rek mu tourné page ginnaaw ba Macky Sall jugee ci bopp nguur gi nag niki avril 2024 bi te nag ñu nemmeeku bu baax nag di woo ci diggante kii di président Diomaye ak kii di Ousmane Sonko kii di Cheikh Khoureyssi Ba nag wandul benn yoon rek rek ay kaddoom moom daal yëkkati na ay kaddoom rek daal di koy fësal ci page Facebook am ma ngay sàkku nag ci nu mu gën a gaawee autorité ñu yeesi nag ñu yóbbu ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekkoon ci nguur gi nag fa mbaxana doone benn bu ko defee rek ñu xoolaat bu baax seeni doxalin naam sax nee na nag li nga xamante ne moom moo concerné violence yi fi amoon ak ci lépp loo xamante ne rek ay ñaawteef lañ te ci nguuru Macky Sall gi nag la xewe woon ak ñi nga xamante ne rek ñu ngi leen di accuser li nga xamante ne rek moom mooy détournement maanaam daal luubal alalu askan wi ñoom ñëpp rek nañ leen yóbbu fa mbaxana doone benn bu ko defee rek justice daal di def liggéeyam moom avocat bi nag nekk conseil Ousmane Sonko nekkoon conseil Ousmane Sonko daal di na yëkkati kàddoom rek jëmalewaat ko nag ci nguur gi nga xamante ne Macky Sall woon na ko ne na nag jamono ji ña ngay laqatu waaye nag nañ leen nañ di weer bu ko defee rek yóbbu leen justice ne la nag buñ ci am benn yërmande parce que nag ñoom ci seen jëmi bopp rek jot na rek lu ñu lekkoon ñu daal di koy goxataat di kaddu yi kii di Cheikh Khoureychi Ba mu daal di cay yokkaat ne nag jamono ji am na ci ñoo xamante ne rek ña ngay fen am am na si nag ñoo xamante ne rek jamono ji ña ngay sos am ci ñoo xamante ne rek ne nañ dañuy jéem a dëgër dëgër lu ak xaalis bi nga xamante ne rek mi ngi ci seen biir nañu ko génnee ci nu bu gën a gaawee bu ko defee rek ñu raxasaat bu baax nag suñu Sénégal ba tey rek ne na appel bu nu mel nag jamono ji naam sax am na écho ci ñenn ci sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi ci réseaux sociaux yi waaye yàkkamte lool nag gis responsable yi nga xamante ne rek ñoom la ñuy jàpp ne nag ay coupable lañ ñu delloo delloowaat alalu askan wi nee na daal mbir mu nu mel moo nekk ci xelu Sénégal yi naam sax lii di rapport de comptes bi ak contrôle yi nag ñu koy amal waaye nag ña ngay sàkkuwaat lekk bés bu ñu demee ba am preuve yoo xamante ne rek preuve yu leer nañ lay doon nañ leen yóbbu nag fa mbaxana doone benn rek ba noppi daldi leen condamné nee na nag jamono ji ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorité yu yees yi dafa defaguñu benn réaction bu officielle boo xamante ne rek mun nañ koo gis ñeel appel yi nga xamante ne ñu ngi koy def waaye nag ne nañ mbir mënu mel nag mën na am volonté boo xamante ne rek euh, dina engagé wu lool ci action yi nga xamante ne jamono ji nag ñu ngi koy amandi bu fekkee ne rek dañoo fas yéene dàqee ji ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekkoon ay sorcières maanaam daal ñu luubal suñu alali buñ ko def nag def ko ab politique waaye nag li nga xamante ne daal ñoom la concerné moo di jamono ji ñu fi nekk ab ñu fi nekk opposant nee na naam sax dal gi tamit mën na baax baax na ci waaye nag dal bu ëpp bi ak yaru bu ëpp bi rek taxul nag ñu bàyyi ñenn ci citoyen yi nga xamante ne rek ñu ngi leen di xaar rek ci action yu concrète yu nu u mel jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abone bés cloche de notification yi ngir mën a am yeneen i xibaar